mbokki Touba mbake ak liko wër seen Salam jeexna ak boutique salam boutique salam di yëngu ci fajum ada ak cosaan indi leen ay garab yu bax lool ci seen yaram ginnaw saytu gi set gi ak sel gi ñom wa boutique salam ñoo nekké fi ci Touba tali bu fi arrêt man yi boutique salam seeni garab mo ngi ko ci réew yu ko fu ci melni Guinée Mali Nigeria ñu saytu ko bamu lambo ak ñariñ te ñepp man ko jariño ñom wa boutique salam dañu fajj gor gu tele di fajj bu na bu wala bu feeñ liñ muy faral di naaj ci tànk yu metti hépatite A hépatite B hépatite C ñoom waa boutique salaam daañu faj asma di faj yaaf di faj estomac ba ci ulcère danga amee feebaru saan wala gémmiñ guy faral di xeeñ ba ci kuy sawlal ñoom waa boutique salaam fàggul nañ leen garab yu baax lool ci tension buy yéeg wala buy wàcc biir buy metti ndoxum siti yéen bokk jigéen ñiy faral di jàmbat feebaru perte balance ba ci fibrom tànk yu metti wala nga amee feebaru sëqat jokkool boutique salam ñom wa boutique salam dani faj naa tubaab naa ko artus indil nañ leen ay garab yu bax lol ci nopp yi metti wala biir buy metti wala ndiguluy metti ba ci bëñ buy metti ñom wa boutique salam ñoo ngi nekké fi ci Touba tali bu bees fi arrêt taxi mani jëm ci xawga bo fa ñëwé da nga ñu fa fekk wala nga wo leen ci numéro yi 77 686 13 68 77 686 13 68 wala 76 926 08 27 76 926 08 27 ak boutique salaam ñoo leen di ñaanal salaamatan wa aafiya asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki talibe yi mbokk yi teewlu ak déglu seen émission bu mag bii di leeral xam-xam leeral xam-xam ngeen ci ànd ak sëñ Mortal Tawféex fii seen seen bu mag bii di Pikine Info xam ngeen ne chaque émission dañuy ñëw waxtaan ci ñetti feebar ñetti tawat bu ñu waxtaanee ci ñetti tawat daal di yëkkati jotaay bi ba beneen émission tey damay njëkkee ci feebaru bët tawati bët yi leeral ko feebar bu nekk nag damay leeral ni muy def doomu bi ba mu leer soo ko defee kim dal boo ñëwee ñu saafara ko mu deñ te bu dañee dootu ñëwaat feebar yi dañ koy traité mu deñ te bu dañee dootu ñëwaat tawati bët yi am na bu tudd taraakum moom microbe bu tudd jaar moo koy joxe waaye nag day wàlle mbooleen ko xam ne kii maanaam am nga feebaru bët boo ko fa jut mën nga ko wàll sa doom wala nga wàlle ko sa soxna ba tey képp koo xam ne kii sa maam daf ko am man nga ko am moom feebar bët feebaru ndono la feebaru wàllante la ba tey feebar bët yi am na bi ñuy wax per bët bët per la per bi dafa am lu ci ñuul am lu ci weex lii ñuul per bi mën naa mel ne lu fulu mel ne lu gris wala mu mel ne lu soppeeku wala mel ne lu vert wala nga gis ne per bët bi lu ci ñuul day am leneen ron lu weex luy tegu ci kaw bët bi kooku la ñuy wooyee feebar bët bi ñuy wax per bët wala nga gis ne bët bi li ci weex day am ay taches xonq wala mu am ay ñuul loolu mooy feebaru bët bi ñuy wax peeru bët am na feebaru bët boo xam si bu nekkee ci yow sa bët yi day xasan ngay toxañ muy génne ndox bët yi mel ne lu wàllent boo booy xool doo mën a doo mën a xool baax kooku mooy ñi nga xam si dañu am feebaru bët ba noppi amaale ndoxum siti moom it dañ koy saafara ba noppi saafara ndoxum siti bi am na ñoo xam si feebaru bët bi nekk ci ñoom suba gi daañu mën a gis waaye guddi gi duñu mën a gis am na ñoo xam si feebar bët bu nekk ci ñoom bu ñuy xool dala taabal wala ñuy xool chaise wala banc day mel ne li ñuy xool ñaar la am na ñoo xam si feebar bët bu nekk ci ñoom bu ñu xoolee seen kanam daañu mën a gis waaye bu ñu xoolee seen wetu ndeyjoor duñu mën a gis bu ñu xoolee seen a gis am na si bu ñuy woowee cataracte am na ci feebar bët boo xam si ñu ngi koy woowee glaucome glaucome boo ko déggee mooy bët bu am tension jëmmi bët bi mu am tension moom it dañ ko saafara dañ koy traité kim dal boo ñëwee fukki fan benn un jour ci koy traité mu deñ te bu deñee dootu ñëwaat képp ko xamné ki dal na la man nga woté ci numéro bobu di jall ci kanam écran bi 78 592 64 54 ben numéro la 78 592 64 54 numéro boobu it mooy numéro whatsapp bi seen mbokk yi nekk bitim réew it faaw ñu def indicatif bi seen mbokk yi nekk bitim réew faaw ñu bind indicatif bi bind numéro bi woo jot ñu appel normal ñi nga xam si dañoo bëgg a ci whatsapp bi maanaam vocal yi mooy gën képp koo xam ne ki soxla nga ñu nga sànni ñu vocal nga nga vocal ñu mooy gën su ko defee kon mooy dem ci beneen feebar muy feebaru gémmiñ gi xeeñ gémmiñ gi am xet la moo ko indi bis njëkk mooy feebaru diabète daf koy indi diabète ak diabète type 2 ñaar yëpp dafay indi xetu gémmiñ ba tey feebaru res dafay indi xetu gémmiñ rawatina feebaru res bi ñuy wax cirrhose bu ne res mooy feebaru foie feebaru cancer biir day indi xetu gémmiñ feebaru ulcère day indi xetu gémmiñ feebaru seere day indi xetu feebaru mbooraan day indi xetu gémmiñ mbooraan mooy siñ mi na ci di génne deret dafay indi xetu gémmiñ tux cigarette day indi waaye naan sàngara dafay indi xetu gémmiñ it ki mu nekk ci yow dañ koy traité traitement bi lu mu yàgg-yàgg ci maanaam euh, feebar bi lu mu yàgg-yàgg ci yow mën nañu ko traité ci fukki fan ak ñaar du jours mu saafara wu deñ te wu deñee dootu ñëwaat mbooleem ku nekk ci son cinq continents yi foo mën a nekk Amérique Espagne Allemagne wala Angleterre am nañ koo xam ne kii mën na la ko indil ba fa nga nekk ndax réew mu nekk réew mu nekk rek am nañ fa kenn koo xam ne kii suñu taalibe la muy Inde Espagne Angleterre fu ma doon mën nañu fexe ba nga jot jot ci garab yi. ma ñëw ci benn feebar muy feebaru góor gu ci tëli ci wàllu sëy la moo ko indi góor bu fekkee sa deret doxuñ ni war a doxee ci yaram yi mën ngaa amee tëli ci wàllu sëy góor gu amee feebar diabète diabète type 1 ak diabète type de ñaar yëpp dafay indi tëli ci wàllu sëy diabète type boo ko amee wala diabète type 2 ñaar yëpp indi tëli ci wàllu sëy tox cigarette day indi traité wàllu say naan sàngara day indi traité wàllu say koo xam ne ki da ngaa amee ndiglu métti day day indi traité wàllu say koo xam ne ki da amee feebaru prostate dafay indi traité wàllu say koo xam ne ki da ngay mballu mballu koo xam ne ki da ngay mballu weddi fooy sa kanam beeg sa bopp dafay indi traité wàllu nerf sciatique maanaam sa siddi maanaam sa siddi yax gi nekk ci digg bi moo tax ci siddi gi kooku la ñuy wax nerf sciatique dafay indi traité wàllu say koo xam ne ki sa yaram moo bëri cholestérol dafay indi tële ci wàllu sëy moom it dañ koy saafara kenn daal mën nga woote ci numéro boobu di jàll ci kanam écran bi boo ci wootee daañu ko saafara ba mu wér soo ko defee it maanaam di wax ne it maanaam ubbi nañ daara muy daara tawféex dañ fay jàngale mbooleem xam-xam bu jëm ci wàllu seet nan nan lañuy seet nan la ñuy firee gént kon mu nekkoon seen émission leeral xam-xam ngeen ànd ak seen mortal tawféex fii seen seen bii di Pikine Info di leen jox di daje ci beneen émission leeral xam-xam jërë ngeen ci Touba mbake ak liko wër seen jaxla jeexna ak boutique salam boutique salam di yëngu ci fajum ada ak cosaan indi leen ay garab yu bax lool ci seen yaram ginnaw saytu gi set gi ak sel gi ñom wa boutique salam ñoo nekké fi ci Touba tali bu bes fi arrêt man yi boutique salam seen garab mo ngi ko si rew yu fasantiko fu ci melni ni Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko bamu lambo ak ñariñ te ñepp man ko jariño ñom wa boutique salam dañu fajj góor gu di fajj hémorite bu bu wala bu feeñ siñ muy faral di naaj yi tànk yu metti hépatite A hépatite B hépatite C ñoom waa butik salaam daañu faj asma di faj yaaf di faj estomac ba ci ulcère danga amee feebaru saan wala gémmiñ guy faral di xeeñ ba ci kuy sawlal ñoom waa butik salaam fàggul nañ leen garab yu baax lool ci buy yéeg wala buy wàcc biir buy metti ndoxum siti yéen bokk jigéen ñiy faral di jàmbat feebaru perte balance ba ci fibrom tànk yu metti wala nga amee feebaru sëqat boutique salam ñom wa boutique salam daani fatna tubab na ko artus indil nañ len ay garab yu bax lol ci nopp yi metti wala biir buy metti wala ndiguluy metti ba ci bëñ buy metti ñom wa boutique salam ñoo ngi nekké fi ci Touba tali bu bees fi arrêt taxi mani jëm ci xawga bo fa ñëwé da nga ñu fa fekk wala nga wo len ci numéro yi 77 686 13 68 77 686 13 68 wala 76 926 08 27 76 926 08 28 27 ak boutique salaam ñoo leen di ñaanal salaamatan wa aafiya